الله أكبر الله kenn mënu ko lim kenn mënu ko dajal ay xéewal yu toftaloo yu continuer ni guddeeg bëccëg continuer ni guddeeg bëccëg toftaloo borom bi subhaanahu wa taala nee na lépp lu ngeen ko laaj am na lum leen ca jox te su ngeen doon jéem a lim xéewale yàlla yi du ngeen ko dajal innal insaana la zalumun kaffaar mu ne doomu aadama ku mën a tooñ boppam la ku mën a def itam ay bàkkaar la mu bokk ci xéewale yàlla yi gën a màgg yim ñu defal muy xéewalu sàkk ñu ñu nekk ay nit boole wuñu ci bàyyi ma yi boole wuñu ci yi amul bakkan te kenn tànnalul boppam fam juddoo ña nekk bàyyi ma du seen suwaa ñun ñu nekk ay doomu aadama itam du suñu suwaa waaye ci mbaaxug borom bi subhaanahu wa taala la ak tawfiqam qul huwa allati ansaakum wa jaala lakum alsama wal absaara wal afida qalilan ma tashkurun yàlla mooy ki leen sàkk may leen nopp yi ngeen di dégge may leen bët yi ngeen di gise may leen xel mi ngeen di xalaate mu ne waaye ñu néew ñooy bàyyi xel xéewal yu màgg yi ma leen defal mbokk jullit bokk na ci xéewal yi yàlla subhaanahu wa may nit ki muy xéewalu dund ci xéewali yàlla yi la bokk moo la ko may ba saa yu ko soobee mu arrêté ko te kenn du wax lu tax ndax am na kenn ku yàlla subhaanahu wa taala yabal malaaka ngir mu faat ko mu ne du ma faatu tey kon xéewal la goog yàlla subhaanahu wa taala moo la ko may te saa yu ko neexee mu arrêté ko kon xéewal googu itam jar na di bàyyi xel nicmatu tasxiiri baadi maxluqaatihi linnaas xéewalug tàggal tàggatal ñu ay mbindéef ni ñun yàlla tàggat leen ñu leen di jëfandikoo lum ñu soobe awalam yaral al insaan anna xalaqnaa lahu mimma amilat aydina ancaaman fa hum laha maalikun wa dallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun wa lahum fiha manaafiu wa masaarib afala yaskuruun borom bi nee na doomu aadama ndax du xool yii nga xam ne man yàlla maa ko bind man yàlla subhaanahu wa maa ko bind teg ko ci seen loxo ñoom ñu koy jariñoo ma tàggat leen ma tàggat leen ba doomu aadama man cee jariñu comme ni mu ko neexee te yooyu yàlla tàggatal ñu ñu di ci jariñu comme ni mu ñu neexee lenn lu ci nekk ci ñoom moo ñu ëpp doole foofu fas wii ñuy war takk ci sareet yéeg ci kawam ak sunuy bagaas di dem ndax ëpp ñu doole foofu giléem gii ñuy war teg ci say bagaas ànd ak moom yéeg ci kawam muy dox ay kilomètres yu bëree bëri ndax loolu ëpp ñu doole foofu xar yeeg bëy yéeg yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo sax yenn saay mu ëpp ñu doole waaye yàlla nee na wa zallalnaha lahum man maa leen tàggat ñeel leen am ci yoo xam ne da leen di war am ci yoo xam ne da leen di lekk am ci yeneen i njariñ yoo xam ne da ko jariñoo ci ñoom muy seen leen leen bi nga xam ne am nañ ko ngeen di ko dagg di ko jëfandikoo ci ay yére yu leen di aar ci tàngoor ci seddaay waaye itam meew mi ngeen di jariñoo ci ñoom saw mi nga xam ne yenn saay mu nekk lu mën a faj doomu aadama muy sawum giléem ak yeneen i saw borom bi subhaanahu nee na yii yëpp maa leen ko defal afalaat tashkuruun ndax du ngeen sant xéewal yi nga xam ne man yàlla subhaanahu wa defal naa leen ko yàlla subhaanahu moo bind doomu aadama bind asamaan ak suuf ak li nekk ci seen diggante yëpp tàggat ay mbindeefam def leen ñu nekk surgay doomu aadama ñuy dukki dukki rek ci lu neex nit ki te bu dul woon yàlla subhaanahu kenn du leen mën a jëfandikoo ndax ñoo ñu ëpp doole fuuf awalam taraw anna allaha saxara lakum maa fi samawati wa maa fi l ard wa asbaxa aleykum niamahu zahiratan wa batina du ngeen bàyyi xel na yàlla moo leen tàggatal li nekk ci asamaan ak suuf sotti leen ay xeewal yu ngeen xam ak yu ngeen xamul niamatul hidayati li haada diin mu bokk ci xéewal yu màgg yi yàlla defal ginnaaw bi mu ñu defee ay doomu aadama tàggatal ñu ay mbindéefam ñu leen di jariñoo te du ñu sañ a bañ yàlla subhaanahu wa taala taw féexal ñu ubbi suñuy xol ba ñu nangu ñaari baati seede yi nekk ay jullit gëm yàlla gëm yonent bi di appliquer diine lislaam ji nga xam ne xéewal la moom itam ci xéewal yi yàlla defal jaam yi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina yàlla keroog ba muy mottali diine ji daf ne tey laay matal ci yéen seen diine complété xéewal yi ma doon wàcce ci yéen muy lislaam ma gërëm ko def ko muy benn diine bu ñuy jaaree pour mën a am sama yërmande mbokk jullit yi xéewal yi ñu yàlla defal yi feeñ ak yu yu nëbb yi ma cité ak yeneen yu kenn ku ne ci ñun yaa ngi koy yëg ay mbir la yoo xam ne jaadu na ci jaam bi mu saxoo di ci sant di ci gërëm borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo la ko defal te yàlla subhaanahu wa taala ci mbaaxam defal la ay xéewal sant la nga sant ko ci xéewal yooyu mu dig la boo ko santee mu dolli la xéewal yooyu ba noppi saxal xéewal yooyu ci yow was adkurkum waskuru li wala takfurun borom bi nee na dee leen ma fàttaliku su ngeen ko defee ma fàttaliku leen lu ngeen nekk rek ma génne leen ci dee leen ma sant te ñàkk ma sant weddi xéewal yi ma yi ma leen defal la te ku weddi xéewal yi ma yi ma ko defal fa inna athabi la shadid denc naa itam mbugal moo xam ne mu tar la mu bokk ci yi nga xam ne day dimbale jaam bi ba mu mën a sant xéewali yàlla yi subhaanahu wa taala mooy di bàyyi xel xéewal yi ak di teewlu saa su ne xéewal yu bari yi mu nekke xéewalu xiif am loo lekk ba noppi lekk mu saf dara xéewalu mar tala naan xéewalu bëgg a tukki am loo war loo xam ne dina la yóbbu ci diir bu sori boo xam ne lam takunu baalixiihi illa bi shiqqil anfus distance boo xam ne mënoo fu woon a yóbbu sa bopp lu dul nga jokkoog coono bu mettee metti borom bi tàggatal la loo xam ne soo ko waree rek mu ne fiwu rek daal di lay wàcce loolu xéewal la gu rëy rëy gu yàlla subhaanahu wa moo ko defal jaam yi xéewalu am néeg boo xam ne ba guddee nga làqatu fa fanaan fa yooyu mbokk yi li muy ndaw yëpp ak li muy tuuti yëpp am nañu ko yàlla xañ kon yow mi ko yàlla may war nga teew lu màggaayu xéewal yi la suñ borom subhaanahu wa defal yaa ayuha nnaas udkuru nicmatullahi aleykum hal min xaaliqin gayrullahi yarzuqukum min alsamaai wal ard laa ilaha illa huwa fa anna tufakun borom bi nee na yéen nit ñi dee leen lim dee leen tudd dee leen fàttaliku xéewal yi leen yàlla defal dee leen fàttaliku xéewal yi leen yàlla defal te kenn mënu ko lim kenn mënta lim xéewali borom bi subhaanahu wa taala mu ne ndax am na kenn ndax am na kenn ku dul yàlla mi leen bind ndax am na kenn ku dul yàlla mi leen bind ku leen mën a wërsëgal wërsëg wuy jóge ci diggante asamaan ak suuf ndax am na kenn kuy wàcce taw ku dul borom bi subhaanahu wa taala ndax am na kenn kuy saxal gàncax gu ñu ji ndax am na kenn ku koy màggal ndax am na kenn ku koy tóor tóoral ba di ko génneel meññent ku dul borom bi subhaanahu wa taala hal min xaaliqin gayrullahi yarsuqukum min alsamaai wal ard laa ilaha illa hu amul kenn ku mën a def loolu ku dul yàlla amul kenn ku mën a def loolu ku dul yàlla fa annaa tufakoon kon fu doomu aadama di jëm su fi bàyyee wéetal yàlla subhaanahu wa taala sunu borom bokk na ci liy dimbali nit ñi itam bañ man di sant xéewal yi leen yàlla defal ñuy xool ki leen féete suuf bañ di xool saa su ne rek ki la féete kaw saa yu doomu aadama ki yégée ne yégée ne li mu yore ci xeewal xeebu na xeebu na tuuti na par rapport ak diw li mu yor na xool beneen diw moo xam ne yeggul sax fi nga xam ne fa la yegg moom yàlla subhaanahu mooy wër mooy wërsëgale di jox nit lu bari di jox nit lu xaw a bari di jox nit lu yem di bañ a jox kenn kenn ku mu ci ñoom ñooñu natt la bu yàlla subhanahu wa taala teg ci kawam waaye du caagi ne ki yàlla jox moom la yàlla faral ki yàlla xañ yàlla da koo mere wala yàlla da koo jéppi kàlla suñ borom nee na déedéet mbir mi demewul noonu mbir mi demewul noonu inna al insana ida mabtalaahu fa akramahu wa naama fa yaqulu rabbi akraman wa amma ida mabtalaahu fa qadara alayhi risqa fa yaqulu rabbi ahanan kàlla nee na déedéet demewul noonu su baaxee rek nga ne man la yàlla faral ñi baax la ñoom la yàlla faral ñi am xat-xat wala jafe-jafe ñoom la yàlla mere borom bi ne kàllaa déedéet su doon loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yàlla ubbil ko xazaa'inu samaawaati wal ard bu doon loolu yàlla yu ubbil yonent bi lépp lu baax ci àdduna comme ni mu koy amee ci àllaaxira waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy faatu dafa tayle am mbubbam ndax bor bu mu amee loon kenn ci juif yi nga xam ne ci noonu lislaam yi la bokk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xool leen li mu jànkonteel ci ay xat-xat ak ay jafe-jafe giiru dundam boo ko yàlla yabalee def ko muy yonent annoncé ko ne ko yaa yonent bi mujj te yaa ma gënal ci mbindeef yi booba la tàmbale ay nattu ba mu déclaré keroog waa Quraysh ne leen yàllaa ma yabal lu mu fa jëlee ak la topp ci ginnaaw ba mu dawee màkk gi nga xam ne fa la juddoo woon fa la yaroo woon fa la màgge quatre cent quatre-vingt quelques kilomètres làqatu ji Madina ngir bëgg faa dund diineem benn at la fa am rek commencé di tabax jàkkam ji di negg-neggal mbir yi rek gars yi attaqué su attaqué attaqué su xare Badar deuxième année troisième année ñu attaqué sa waat xare Uhud cinquième année ñu attaqué sa waat xare Ahsaab sixième année mu dem doon tentative pour mën a umra ji ñu baare ko mu signé ñoom accord de paix xaswa sulhul Hudaybiya septième année mu attaqué ji juif yi nekkoon Madina ci Xaybar huitième année yàlla subhaanahu wa taala dëgëral ko mu dem màkka ubbi ko def ko réewum lislaam neuvième année mu sant abu Aboubacar mu ñëw màkk ngir jiite délégation ujaaji jullit ñi dixième année sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ndax am na benn instant boo xam ne noppalu na wala mu féex wala mu dund aafiya ak li nekk ci guerre yëpp ci préparer guerre ak retourné waat ci guerre di faj say say say say say blessé ak préparer waat attaque yu dal ci sa kaw loolu ci la yonent bi dund ba ni mu génne àdduna ànd ak loolu lépp nag taxul woon mu yaatule ci am koom taxul woon mu yaatule ci am koom bi ko soxna yi songee benn bis ne ko dañoo bëgg nga yokk dund bi dépasse bi ñoo bëgg nga yokk dépasse bi ndax daal kër yu bari fi mu ne nii ñu ngi yokk seen dépasse def na leen kay kayfa anhum wal malaku al muwakkalu bi nafqi ruuxi qad iltaqama naa wa xannaa jabhatuhu yantazir mataa yu mataa yumar fa yunfax def na leen nu may noosee ci àdduna si nga xam ne malaaka ma yàlla sant mu wal buftu ga sex ne ko ba noppi ba ñëkkal kanamam di xaar yàlla jox ko ndigal rek mu wal mu ne ko oo oh, mu ne leen oo oh, ma temps oo oh, ma temps oo ma waxtu pour noos ci dunduk àdduna gi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk jullit du caage ne saa yoo néew néewlee rek yàlla daa farut ak yow du ceege du caage ne itam ki bëri le yàlla subhanahu wa taala moo far ak moom kenn ku ci nekk yàllaa teg ci moomu nattu di xool ndax dana appliquer li nga xam ne moo ko war ci diggante digganteeg li ko yàlla jox wala déet kon doomu aadama ki du saa su ne muy xool ki ko féete kaw rek saa yoo jàppee ne néew le nga tuutale nga boo xoolee ci suuf ci sa suuf da nga gis ñu bëri ñoo xamante ni seen li fi nga am li nga am ak fi nga toll ñoom dañ ne woon siiw yegg sa fi wala ñu am ko loolu bokk na ci liy dimbali doomu aadama ki ba mën a sant xéewal yi ko borom bi subhaanahu wa taala defal mbokk jullit yi bokk na ci liy dimbali doomu aadama ki ba man di sant xéewali yàlla yi ak di ko teewlu mu xam ne bépp xéewal bu ko yàlla jox bépp xéewal bu ko yàlla jox ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam suñ borom subhaanahu wa taala dina ko ko réglé suñ borom subhaanahu wa taala dina ko ko réglé wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula lépp lu la yàlla may ci xéewal dina la ko régler ëllëg yowmal qiyaam bët bi nopp bi xel mi lépp dina ko régler summa la tusalunna yawma idin ani naim yàlla dina leen laaj ëllëg yowmal qiyaam xéewal yi mu leen joxoon yonente bi ne saxaaba yi ba ci mara naan naan ndox mu sedd yàlla dina leen ko laaj ëllëg yowmal qiyaam loolu nag su nekkee ci sa xel danga xam ne yàlla rek mooy ki ki jaadu ki ki jaadu ñu sant ko yàlla mooy rek ki jaadu ñu gërëm ko yàlla mooy kenn ki jaadu ñu wéetal ko ci lépp loo xam ne ak jaamu la mbokk jullit di sant xéewale yàlla yi subhaanahu wa taala ñetti cër ñooy àndandoo di ko def xol bi dafa war di sant làmmiñ wi dafa war di sant cëri doomu aadama yi itam dafa war a ànd di sant loolu mooy différence entre euh, li arab di tuddee ashukur ak alhamdu bu dee ci wolof moom sant rek lay lay lay lay wax alhamdulillah maa ngi sant yàlla la maa ngi sant yàlla ci wolof mais ci araab alhamdulillah mooy nga sant koo xam ne daf defalu la dara sax waaye da ngaa yëg ne war nga koo sant war nga koo war nga koo gërëm waaw mais sukkuru nag sukkuru nag mooy cant goo xamante ni si ne làmmiñ wi da ciy dëppoo ak xol beeg cër yi mu soog a nekk mu soog a nekk sant mu soog a nekk sant kon doomu aadama ki dafay sant yàlla subhaanahu wa taala ci xolam ci reconnaître ne xéewal yi nekk ci moom ak lu mu bari bari ak lu mu néew néew yàlla subhaanahu wa taala moo ko ko jox na jaar fu mu mën a jaar nag mu jaar faneen ci doomu aadama ak mi mbindéef taxul doomu koo ko jox la ko xanaa kon ñu sant asamaan si ci taw bi nga xam ne mooy jóge ci asamaan waaye kenn ci ñun du taw ba seebat mu naan maa ngi sant asamaan ci taw bi kan lay sant yàlla subhaanahu wa taala mais yebal taw bi mu jaar ci asamaan si wàcc ci suuf bu doon loolu itam ñu sant suuf si nga xam ne ci la ñuy mooy meññil li nga xam ne moom la ñuy ji waaye gis nga kenn koy sant suuf ci meññent moo xam ne indil na ko ko kan lay sant yàlla mi nga xam ne moo jox ndigal suuf si mu mu meññeel li nga xam ne meññ na kon xéewal gu yegsi ci yow ak fu mu mën a jaar ca ka mu jóge mooy mbir ma mooy yàlla subhaanahu wa taala sunu borom doomu aadama yi yenn saa yi nag dañuy topp ay détails ba fàtte ko mag ka nga xam ne moo defoon lépp dama koy faral di misaal ci benn néeg boo xam ne dañ koo préparé def fa mbooleem lu doomu aadama ki di soxla ci ndékkeem ak añam ak reeram ba noppi def fa doomu aadama nit ki nekk ci biir néeg bi di kurkuri ba si yàgg mu gis ndékki daal di ndékki kurkuri waat ba si yàgg mu gis añ daal di añ continué ba yàgg mu gis reer daal di reer nit ñi daal di génn ne ah añ naa reer naa ndékki naa ci ne ñëpp di ko félicité di ngandal loolu li mu def fàtte ka nga xam ne moo préparé ndékki ak añ ak reer ci néeg boobu loolu mooy suñu borom subhaanahu wa taala ak mbindeefam yi ak yëf yim ñu tàggatal ci àdduna yàlla daf ñoo sàkk ci suuf comme ni mu ko waxee wala si xalaxakum min al ard maa leen bind ci kaw suuf fii fiiha sant leen ngeen di dukki-dukki pour mën a génne xéewal yi ma leen defal ci kaw suuf bu nit ki xoosee nii rek génne pétrole ñu ne ah kii mooy ngand moo génne pétrole bi waaw ka fa def pétrole ba nag kooka moom lan la bu dee ki génne pétrole bi nga xam ne dañ ko faa dencoon ngande la moom waaw ka fa dencoon pétrole bi moom mooy kan mooy yàlla subhaanahu wa taala kon xéewal yi nekk ci sa loxo ak fu mu mën a jaar ak fu mu mën a jaar ka nga xam ne ca moom la jóge mooy borom bi subhaanahu wa taala moo ca yeyoo sant moo ca yeyoo gërëm moom la ñu war a reconnaître ci suñu xol ne lii nga xam ne am nañ ko ci xéewal ci moom rek la jóge moom borom bi subhaanahu wa taala bu ñu reconnaître ci suñu xol ne lii ci yàlla la jóge ñuy wax ci suñu làmmiñ nag luy wane ne ñi ngi koy delloo njukkal ñuy wax ci suñu làmmiñ luy wane ne ñi ngi koy delloo njukkal di ko tagg di ko bàkk di ko kañ ci xéewal yooyu nga xam ne defal nañu ko moom yàlla subhaanahu wa taala kon xol bi sant na làmmiñ bi sant na cër yi ñu borom bi subhaanahu wa defal nag moom itam di def lu wane ne ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa fexeel ba tànk bi du jéggi jëm ci lu neexul yàlla fexeel ba loxo bi du séqi laal lu neexul yàlla fexeel itam ba bët bi du xool lu neexul yàlla nopp bi niki noonu ci noonu la ñuy sante yàlla ci cër yim yim ñu defal benn taalifkat daf ne sant mooy nit ki jëfandikoo xéewal yi ko yàlla jox fi neex borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy sant yàlla subhaanahu wa taala mooy nga nangu xéewal yi ci sa xol di ko bàkk di ko kañ ci sa làmmiñ tënk say cër ci li neex yàlla lu ko neexul nga bañ koo def yàlla na yàlla dimbali bañ bokk ci ñuy sant ay xéewalam aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulilahi rabbil alamin laka alhamdu ya rabbi hatta tarda wa laka alhamdu ida radayta wa laka alhamdu bada rida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallah shukru niam taziduha wa kufruha tuziluha qala taala wa id taadana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wa qala aydan wa daraba allahu masalan qaryatan kaanat aminatan mutma'inna yatiiha risquha ragadan min kulli makaan fa kafarat bi anamillah fa azaaqaha allahu libaasal juuci wal xawfi bi ma kaanu yasnaun mbokk jullit yi sant xéewale yàlla yi reconnaître ko di ko ci bàkk ak delloowaat ko ko dafay yokk ay xéewal day taxitam ay xéewal sax day tax ay xéewal sax borom bi nee na déclaré naa ne ku ma sant rek ma dolli ko ku ma sant ma dolli ko ñàkk maa sant weddi samay xéewal lay doon te ku ko def am naa mbugal mu tar mu ma ko dencal yàlla ne maa ngi leen di jox misaal ab dëkk bu amoon sécurité am dal lool fu nekk la wërsëg di jóge di ñëw fu nekk la wërsëg di jóge di ñëw au lieu ñu sant yàlla ca loola gërëm yàlla ca loola ndax mu sax ba noppi yokk ñu weddi xéewal yooyu leen borom bi subhaanahu wa taala defal borom bi nee na fa azaaqaha allahu libaasal juuci wal xawfi bi ma kaanu yasnaun ma booleel leen ñaari yar yi may dumaan nit ñi saa yu ñu wàccee sama yoon mbugalee leen ko ci wedd gi ñu weddi woon samay xéewal mooy xiif ak insécurité ñaar yooyu moom la yàlla subhanahu wa di delloo si waatee doomu aadama yi xiif xiif ak insécurité ak ñàkk jàmm xiif ak ñàkk jàmm loolu nag soo seetloo àdduna bi réew mu sax ci wéetal yàlla kese ci mën a mucc suñu réew yi ñun ba muy ñaar yëpp lañu ñu booleel dañuy xëy di dang dangi yàlla xam ne ne sénégalais yi li ñuy dag li ñuy daj ci liggéey ak liñ koy doyee wallaahi yàlla xam ne ne jaru nit koo xam ne balaa fajar mu génn këram gannaaw gee lay dellu siwaat looy liggéey lu xew lu ma lekk laay wut lu ma lekk lekk jërut loolu lekk jërut dang dangi avant fajar ba jant bi soo nga dellu siwaat pour pour loo lekk rek yàlla subhanahu wa ñaari yar yooyu lay duma àdduna bi imma mu xañ la loo dundee ngay dang-dangi rek lu ma lekk rek laay wër wala am nga sécurité wala am nga loo lekk mu dese la nag sécurité ndax am nga sécurité ndax am nga sécurité bu mën a génn fii yor li nga bëgg a yor doxee ni nga bëgg doxee yàlla subhanahu wa taala nee na ñii nag bi ñu weddee xéewal yi ma leen defal ñaari yor yëpp laa booleeg ñoom fa azaqaha allahu libaasal juu'i wal xawf xiif ak insécurité laa boole mbugale leen ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam nettali nañu ñetti nit ñu doon dund ci banu Israil kenn ki dafa gaana woon kenn ki am feebaru xuuf boo xam ne kawar gi amul am mënta am kawar kenn ki gumba yàlla yebal malaaka mu ñëw ci kenn ku ne ci ñoom mu ñëwee ci gaana gi ne ko loo gën a bëgg mu ne ko xanaa yàlla wéral feebar bi ma amee nii may ma der bu rafet delloo siwaat sama kawar mu daal di koy ñaanal yàlla yàlla daal di koy saafara mu ne ko loo gën a bëgg ci alal mu ne ko giléem mu daal di koy jox giléem gu jigéen gu ëmb ba diis daal di koy ñaanal yàlla barke ci giléem gi ko yàlla jox mu dem ci ka feebaru xuuf ne ko loo gën a bëgg mu ne ko xanaa yàlla di dindil ma feebar bii mu ma teg may ma kawar gu rafet ba ma mën a jaxasoog nit ñi mu ñaanal ko yàlla mu wér mu ne ko loo gën a bëgg mu ne ko xanaa ay nag mu daal di koy jox nag wu jigéen wu ba diis mu dem ci gumba gi ne ko loo gën a bëgg mu ne ko xanaa yàlla delloo si waat samay bët may gis comme ñëpp ñaanal ko yàlla muy gis mu ne ko loo gën a bëgg mu ne ko ay gàtt ay xar mu ñaanal ko yàlla yàlla wërsëgal ko ay xar yàlla barkeelal kenn ku ne ci ñoom ba nga yor gétt ca la nga amoon kee yor géttu giléem kee yor géttu nag kee yor géttu xar ka yàlla yebaloon jaaraat ci kenn ku ne ci ñoom ñëw ki yor géttu giléem ne ko ah man de ab tukkikat laa boole ci ñàkk lool xamatuma fu ma jëm yaakaaruma kenn itam ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala ku dul yow nga dimbali ma ci gileem goo xam ne dinaa ko jëfandikoo ba yegg fu ma jëm mu ne ko xoo oh, soxla yi daa bëri de fi nga ñëwee baaxut soxla yi daa bëri ak yitte yitte lu ñu yor doyuñu mu ne ko ah waaye yow xanaa du bu ma fàttalikoo day bu yàggul rek daje woon nañ ma yow nga gaana woon ñàkkoon lool mu ne ko déet da ngaa jaawale de da ngaa man alal ji ma yor ci samay maam laa ko doon alal ji ma yor ci samay maam laa ko doon ne mu a ko bu dee da fen yàlla na yàlla xuuf sa alal te delloo la ca na nga meloon ñëwaat ci ku ñaareel ki yore nag yi wax ko comme li mu waxoon kële kooka yi tontu ko comme li mu comme li ko kële tontu mu ñëw ci ku ñetteel ki gumba woon wax ko comme li mu leen waxoon kooka daal di delloowaat lépp borom bi subhaanahu wa taala ne ko xat kuntu ama fa radda allahu li basari fa xus ma sita wa da ma sita fa wallahi laa ajhaduka al yawma bi shay'in axastahu lillahi azza wa jal mu ne ko man day gumbalaa woon yàlla delloo sil ma samay bët may ma wërsëg bi ma may nga ñëw di ma ci laaj te yàlla tax jëlal lu la neex bàyyi lu la neex yàlla xam ne ne duma la jàppe dara même boo jëloon sama alal ji yëpp mu ñaanal ko yàlla yàlla barkeelal ko ñële yàlla subhaanahu wa taala yóbbu a xéewal yi nga xam ne joxoon na leen ko kon bokk jullit sant xéewale yàlla yi daf koy saxal daf koy yokk yàlla nañu yàlla dimbali ba ñuy sant ay xéewalam te delloo xéewal ci borom bi subhaanahu wa taala bañ koo askanale kenn ku dul suñ borom subhaanahu wa taala rabbana aati nufuusana taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walafaafa walghina rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaaba annaar rabbana hab min azwaajina wa dhurriyaatina qurrata ahyunin waj'alna lilmuttaqina wa salli allahuma ala abdika wa nabiyika muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qumu ila salatikum yarhamukumullah